mu tàcc keneen ki gisee sul kemam fa wallaahi boobee bu dul konte moom mi Sénégalu cantam du weesu accam ba buur makka wootee di def kongareem te naan njiitu lislaam bi laa bëgg a xam mu wax kab la ambassadeur bi fi ne ñi ko wal ma Abdul Aziz si mooy ka gëm jox ko paas bu ànd ak i fereem te naan Abdou Mam Maodo naa gis jëmmam ndawal buur la teewal Saoud jóg taxaw ni fii kenn du fi dem lu dul Abdou dem keroog Mouhamadul Habib ak Seydou Nourou Taal ñi lee tax mu jóg jël décision ci dem ñu daal koy xamal ni fala udratay nii ku déggul li ñuy wax mënul njëkk a am sëriñ Abdu yaa ñu demal réewum arab ku dul yow ci mim réew su demee du indi ndam sëriñ Abdu yaa ñu demal réewum arab ku dul yow ci mim réew su demee du indi ndam ku dul yow ci mim réew mënul dem ijaas dafay indi xeebeel te loolee du am mu wax Cheikhu Mbakke jógal kon ñu dem ku dul yow amul fit bu mat fee ñu jëm na yaay sët ci Bamba di taaw Moustapha Mbakke te doy leen dangaa am gannaaw am kanam ñépp def ni góor gu baax googu nee na ko yaay sët ci Bamba di taaw Moustapha te doy leen da ngaa am gannaaw am kanam ñu jóg àndandoo jëm dem ci réewum ijaas ñi lee ñaara am ngor te ñoo bokk jom xamal réewum ijaas du ñoom deeti yàpp Sénégal ngir ak Abdou moo leen ëlëm ba yaaram ya booloo di yéem Abdou naan kii dañoo jortu woon ni du mooy ñooy gis jëmmam mu far seppi raayat ijaas yut nu fii de kon te bul yow mii fu nuy xal di jëm sëriñ bi yaa mat te yaa jara damoo dama réere woon mbir ci yow maa la xam sagal ngaa di sam réew ci réewum arab na bur yàlla fay la te ngay jëm kanam da baax a baax te mat sëriñ laa biire nit ñi tey jëriñ borom tëraay bee daa nooy lool ba mel ni fëriñ ku baax taxul nga mel ni moom su réew mi yëpp royoon ci moom jiital ko jox ko li mu moom xam ni bëggul lu dul juróom mu yóbbu leen ci seen boroom su luy amoon jàmm ci taw su luy amoon nit ñi nelaw su luy amoon seytaane daw xam ngeen ni lii moo war a am alxaaji Abdu Aziz Si Maalik dall yonen bi yaa ko soloon fii tariqa cheikh bi yaa ko safaloon sap Sénégal gi di gaal gi yaa ko kal nde kon mu suux ñépp a ko xam Abdul Aziz daalab ci mbaax góor gu baax gee ca tëraayam bu jëkk bee ca bijaawam bu rafet boobee daalam ci mbaax moo tax mu def ñépp rifaaq xamul lu ñaaw mënul siqaaq ku mel ni moom yomb la am xamul ñañeen xamul si ñeen nga bokk waalo mbaa feneen ngay sëtu yeneen mbaa mu Cheikh Abdul Aziz ku jub la xam amul ñeneen amul fiyeen nga bokk waalo mbaa feneen ngay sëtu yeneen mbaa mu Cheikh Abdul Aziz ku jub la xam nan mooy ci moom tero yi ci moom te nay ci moom te nooy ci moom te say ci moom te seey ci moom mooy sunu saas moom la ñu am asuuqu lakum fii qaala bi shi'ri sayyidi la aaliya aadaabin samat an zabarjadi fa fi madxikum taxlu wa tazuuqa qafaa'idi wa tazdaadu alfaadi bi asmaa fawaaidi waaw moo yow baay ayaa sayida saadaati nuzhata asrihi mu mi dëri لا إله إلا يوم لا إله ملكي ما تمنى ربي لا إله إلا يوم لا إله ملكي ما تمنى ربي لا إله إلا ما تمنى ربي لا لا إلا حاج مالك بيانا جروم يتي أتي رسول الله كلا مامم دم برزق yóbbaale ci ab téeméeri at yu manqué juróomi at di def xaaji ma ne at moomu ku ñu wax xaatim gaañu na ci ku ñuy wax anu charwaan gaañu na ci mu ne ñii ñëpp ville karami borom yi tedd nga lañ téere yi laajte ni anu charwaan yéeféer la alaaji malik ni zil karam yi borom tedd nga la déglul de loolu laaj na lay de ndax anu charwaan ndax du doomu aadama yàlla néewul wala xat karam naa waaw kay kon bu ne zil karam yi borom tedd nga la ne doomu aadama la beneen bi toog dil karam yi borom ak tabe la te kat ku tabe këram mooy aljaan ku nay këram mooy safara yonent bi nee na asaxiyu qaribun min allahi wa qaribun min annaasi wa baidun min annaari السخي قريب من الله وقريب من الناس وبعيد عن الناس yonent bi ne nag ci tabee jege na yàlla ci tabee jege na nit ñi sori na safara ci contraire bi ne nag ci nay sori na yàlla sori na nit ñi jege na safara te xaatim tab la woon anu charwaan borom ngóor gu maandu la woon alaaji maali ni kon kay zil karami juróom ñaari ati rasulillahi alaaji maali nee na am na lu ko ci dal xam naa ko ñu ne ko lu ko dal lan la mu ne dafa feebar feebaru bët dafa wànnent moom yonent yàlla muhammad ba mu wànnentee lan lañu ko faje si da xaaji maali lañ ko yóbbu ci ab docteur docteur bi xool ko laaj ko ay laaj daf ko njëkk a laaj noo tudd mu ne ko Muhammad kuy sa baay Abdullahi kuy sa yaay Aminatu ñaataat nga am juróom-ñaari at mu bàyyi fa yonent bi waxanteeg maam Abdul Muttalib ni ko sa sët bii wànnent mu ne amuñ ko soxlawul soxna ci faj bi lay faj yaramam du jóge ci docteur ndax moom mi mooy docteuru docteur billaay maa bëggoon ngeen déglu ma li muy gàtt gàtt sa sët bii la koy faj di jóge ci docteur ndax moom mooy docteuru docteur yi xam nga nooy def dawaa uhu riiquhu soo bëggee mu faju mu ne am mu ne ko digal ko mu tëf li loru gémmiñam mu tëf li loru gémmiñam raay ko ci baaraam bi ba mu tasaaroo mu ne ko nan laa koy def mu ne ko diw ko ci si da xaj bàyyi ne mu ne ko ca faraas bët ba ni tàll la ca weex weex ni tàll la ca ñuul ni dégg ni kukk yal na ko cat du ko jàpp yàlla mi bind cat yi ak li ñuy catu moo ko aj ca kaw cat fa sa yakfikahum allahu wa samil alim yal na ko cat du ko jàpp ñun ñii la catu xalima ay ci ñun ak catu bët ak catu làmmiñ kay sot xalima wéet di wax yi muy wax di lonkal yu lonk ya di bank yu bank ya di ca def turu jaamur di woote kookaa ay ci ñun xëy naan ay bidaa mu samba mu teemee xendem ba sali mu kakkun waaja yal na dammatoo kooko ay ci ñun waaye yun sell Muhammad kenn mënul ci moom loolu jibar nañu ko ba defee ni ñoo ci nekk sunu borom fajal ko boppam ñu leen ci ngeen di trompé du kii Labid ibnu Laasam lañu ko sant yahud la juif la mu laaj fokki fàlle yi nas la muy nas def ca la mu cay def fukki pas-pas ak benn la ko fas sànni ko ci biiru zarwaan yeneen ci biir toog léeg-léeg mu mel ne luy def dara te def ko léeg-léeg mu mel ne luy nelaw te nelawul léeg-léeg muy wax ak kenn te waxul ak kenn def ko ab diir yàlla ni ko dama lay wan ni ci nit ñi nga waaye dinaa récupérer yéegalaat la ba nga xam ni yaa tax ma bind yéeg xëy rek ni ko xul waxal ni aawudu maa ngi muslu di làqu ci yàlla bi rabbil falaq yàlla miy boroom suba wala bi rabbil falaqi ci yàlla may boroom falaq yonent bi ne alfalaqu sijnun fi jahannama yuxbasu fihi aljabbaruuna walmutakabbiruun wa inna jahannama la tataawadu minhu sabiina marratan rasulillahi nee na falaq benn département la ci biir safara ñu rëy ñi te beew te bare tiitër ñooñu lañ fay dugal jahannama ga mu nekk nag dana musli ci moom juróom-ñaar fukki yoon par bés falaq moomu nag ka ko moom na ma musal maa ngi ñaan mu musal ma min charri ma xalaq ci ayu lépp lu mu bind wa min charri gaasiqin ida waqaba ak ci ayu lënda mu guddi buy tàbbi si wa min charri nafaasaati ak ca ayu ñuy tafli ci loo qadi ca paspasee kooku am na ñaari piir bu jëkk bi mooy bii ma wax bi ci des mu ni daaw góor lu mu bokk Abdou Aziz sa nijaay nga ñëw wax ci nopp daaw góor ba dootu nuyu Abdou Aziz jàll wax ci nopp Abdou Aziz ba dootu nuyu daaw góor pas-pasu mbokk bi dox seen diggante taf li nga ci gis nga jàdd yooyu ku ko wedd gis nga kafaaka rabbuka bi ngeen di way defe ni way la du way jàppukaayu jaan la billaahi jàppukaayu jaan la jaan soo xamee baatinu loolu te gëm ko seen ko mu ñëw yëkkati bàngoor bi nga ne kafaaka rabbuka kam yakfiika waakifatan këf kaafaha ka kaliinin kaana min kalakin takarra karran ككر الكر في كبد تحكي مشككة كلت لك الكلك كفاك ما بي كفاك الكافي كربته يا كوكبا كاد يحكي كوكب الفلك بوين عن المتي بوبي وتدي رجلا بوين وكالة وكو دول روح question la daaw góor wax daf ni boo waxee loolu gàddu ko mu màtt la nooy def li ngay def yomb na bisimilah xaree jaan xaraa doona jaan sitikum daalikum bini ngoosee liif yàlla yaa muhammad man jibril ana métti métti yallaahu yallaahu xaala salaamun jaan wa man jaan jinne tiilun jinne tiil te ismu kuru kurum jaan umu ma la yàlla la wum ku yàlla wum nga umu an kamaruhum sakaruhum Cameroun ngoosee jaan ngoccee jaan biri biri kontabul ngalaañu omar yuru yuru ngalaañu kuru kuru buubu jaan بسم الله أن من أن كثرت بالله ورا أنت له من ريت الجان جان ريت المن رد دي دومبر خنق دي قلوب دي تجي معي جان نيو دي جنن جان جل دي تباب تبندور دي لب لب ونك دي سرير يل دي بل ngullu ngullu ak loolu jong jongaan bu ma jong ci jaan man ku ma jong ci jaan day sàkku ndeyam mbaate mu daan bàyyam jinne jiifa jiifun jinne jaafa jaafatin telun jine kun kakkun kakkun jëkk jëkk jëkk ma leen jëkk ma di ma nekk taati kun di yàqu li jànj bi bakkaru kuddug jipp jaan fi suuf mu wàcc mu wàcc mu wàcc mu wàcc mu jeex mu wàcc man duma firi këtu gàmmu de du way de sunu mag ñi yàlla leen yàlla fay mag ñu baax lañu li ñu am buñ ko gëmoon te jàpp ci sunu lépp baax rasulullahi wànnent na te bët ba daa dijji te wànnent mi ngi aay ci borom bët bu dijji alaaji malik nee na wala haadi njool makka ataahu dikkal na ko ramadun wànnent fi saabiil aami ci juróom-ñaareelu atam fa yàlla hoo wanaa la ko ñeel ramadun wànnent wa min shiddatil alami mu nekk ci taruk metit ndeke doon nitu yàlla du te feebar doon nitu yàlla du tee boo xaree ñu dàq la bu neexee yàlla doon nitu yàlla du tee nga jéem dara am échec yàlla nattoo mi ku ko neex mu teg la ko moo tax bu la nattoo ñu di la ko reetaane kooko cuune la waaye ñuy tëfli ci pas-pas yi nañ ci nañ ko bàyyi wa min charri nafasaati yàlla yàlla nañ ma muyal musal ci ay way tëfli ñi fil oqadi ci pas-pas yi wa min charri xaasidin ak ci ayu képp ku añaan isa xasada ci jamono jëm añaanee waaye ñi añaan nag baax nañ fi lool ñi añaan yàlla nañ fi yàgg te yàlla bu leen dara jot ñu wér toog fi di añaane rek xam nga lu tax koo gis bant cuuraay la bu neex xet te ñaan mooy doon safara taal ko ba xet ga faf génn ñi lay añaane ak di iññatee ko iñañe ñi ñoo lay avance ku ñu añaanewul doo avance ku ñu añaanewul doo avance Mansour Sarr sama rakk bii bi sama papa tudde Seydi Hadj Mansour ñaareelu voyage am ci France dafa dañ ma ne dafa sàcc kalpeb tubaab ci la jële xaalis nee na moom ba mu ko déggee ca la fas jom gën a liggéey bu ñu waxul woon dina sàcc kalpeb tubaab ba bu amee ñaari million rek wàññi ko moo tax ñi lay yéejeeg di la calomnier ak naan waaja dafa bare tiitar ci ngay dëgg yow ba fa fi yàgg ñi añaan yal nañ fi yàgg wa min charri xaasidin ida xasada qul waxal yow Muhammad ni aoudu maa ngi muslim bi rabbi naas yi ci yàlla mi borom nit ñi ñaari saar yi laa leen di firil tey boo demee kat ñu ngi naan moom da ci saar yu gàtt yi rek la nekkoon alxuraan saar wane ci gàtt moom da ci saar yu gàtt yi rek la newoon qul waxal yow rasulullah ni aawuzu maa ngi muslu bi rabbi naasi ci yàlla mi borom nit ñi maliki naasi kii buurub nit ñi ilaahi naasi kii yàlla yi nit ñi baatu rabb la tudd ak ilaah ak malik lu leen teqale ñetti xeeti nit a fi ne gone gu tuuti ak ku toll ci digg dooleem ak ku màggat bu kumur kon prix mi soo bëggee mu jege da nga naan xol waxal ni aawdu maa ngi muslu bi rabbi naas yi ci yàlla mi yar gone yi maliki naas yi kii buuru waxambaane yi ilaahi naas yi kii yàllay màggat yi gone ku laa biir la xam yàlla laa biir ci moom borom doole buur la xam yàllay damm ndiggam màggat kuy digle lu baax muy def la xam yàllay ilaahi naas ndax fa la yem déedéet min charril waswaas yàlla yàlla na ma musal man Muhammad ci ayu jax-jaxal xam nga luy jax-jaxal tëdd guddi ni gam-gam ni su ma xëyee de incha allahu nizar naa siyaari Sëriñ Bay Mansour danaa yóbbaale sama dix mille jox ko ko te yàlla tax mu ne cinq cent mille nga yor de bu ci dix mille yi génne nga ñàkk mu ne yée naa ko bàyyi ba am beneen dix mille waswaas sa ngook aiguille wu montre mooy waswaas aiguille wu montre noonu muy rapp rappee liy tas sa pas-pas noonu lay rappee rappee yaalamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wa naxnu aqrabu ilayhi min xablil warid suñu borom nee na compteur bi ci seen xol bi ni muy tag tagee di la bëggloo ak di la bañloo di la avancé loo ak di la wàññiloo nee na aiguille boobu xam naa ni muy dalee. alxannaas sunu borom nee na dafa nëbbu ci sa biir te bon lool alladi cheytaane mi nga xam ne waswisu day jax jaxal fi suduri naas yi ci dënnu nit ñi minal jinnati ci jinne woon naas yi ak nit. fukki laaya la ak benn laaya bu njol makka jàng benn pas-pas bi tipp bu jàng beneen beneen pas-pas bi tipp bu jàng beneen beneen pas-pas bi tipp ba fa la xëy naa si jeex alaaji maa ni waxat saaxaroo jibaroon nañu xayral waraa yonte yàlla muhammad waaye fa shafa bii faj na ko tabibul atiba docteur docteur yi wal ilahu yàlla wakiilu moo dénk yonte yàlla muhammad boppam mën naa yem foofu de gën a neex na colonel daf ni damaa naxewul tey kon dama daan naxe boobu ba léegi maa ngi daaneel kàddu gi jox Sidi Aboubacar maa laa yumkinu kulluhu la yutraku kulluhu lu léppam mënul am ndax dafa bari loo ci am doyloo ko su ma jëloon ci timis di xotti ba fajar insha allahu ñaar yi benn du ci am du ma sonn li may wax du jeex lu sama jëf nag luñ def ci man la lu sama effort bopp luñ def ci man la su ma dooroon ci timis di xotti jëme fajar ñaar yi benn du ci am du ma sonn li may wax du jeex insha allah kon li ma ci wax doy na waaw ndax kontaan ngeen yal na yàlla kontaan wasalaamaaleykum wa rahmatullah man daal ndekkee damaa sopp jekki-jekki rek daal di ne wàcc naa dem ba toog ni fagam mu ne ma wàcce góode wàccaatal ci suuf
ma jaayu liw na saydi man ma dama borom bareerool ba kamay na ku topp saydina muhammad nelli almalatau jannatan salaala wala faxra muhammad lama baana ayaati salaata waaw ndax dégg ngeen li daaw góor wax man de bala ma cee dugg di jéem a wax li mu wax da ngeen fi tasu ba tàmp ba tànt bi daanu te làmp yi du fay ba doon ko fii
maa baraangay ak xeewal yi yaa ko waral yaa sunu wasilatu ahmad
sunu boroom a bind mbindeef yi moom ñépp wëlbatiku tànn ci ni nit ñee ma gënal ci ni ma bind nit ñi julit yee ma ci gënal julit yi yonent yee ma ci gënal yonent yi jeyshun ya trois cent treize yaa ma ci gënal vingt cinq yaa ma gënal ñoom la alquran signalé vingt cinq ya cinq yaa leen gën yooyu ulul azmi mu toog loo kaat ya joxoñ kenn ki xam nga ban la woon Muusa Ibrahima Noox nga Isa mu ne leen toog leen rang bi ci gannaaw ngeen féete joxoñ kenn ki tax nu tànt Sayyidina Muhammad yéen bu ne balaa ñëw day déclaré ay mbiram ndaanaani ndaanaani yaa leen jox lu nuy daane la ba saada ba yaati
sunu borom ne su ngeen nee gëm ngeen ma li feeg rasulullahi waxagul ngeen def lam wax tereegul ngeen bàyyi lam tere doxagul ca kanam ngeen dox ca gannaaw d'accord aguma ci fala wa rabbika la yuminoon xata yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum suma la yajidu fi anfusihim xarajan mima qadayta wa yusallimu taslima
Thank you. ديار الجنة لما زاد
waaw monsieur le maire El Hadj Demba Seck dama am question bu may poser bëgg réponse bu gaaw bu clair waaye ñett ñi ku ci gën a ragal ki nga xam ne dañu la ni balay am junni ak gaynde dana ñëw ci sa kanam nga tiit ba dee ak ki génn ci pénc mi ñu ne gaynde gaa ngi ci pénc mi mu tiit ba dee ak ki ñëw ñu ne ko gaynde gi ñëw na dem na boobaak léegi junni at la mu tiit ba dee ñett ñi ku ci gën di baqaar ki ñu ne gaynde gi dana ñëw balay junni at mu tiit ba dee ak ki ñu ne gaynde gaa ngi ci pénc mi mu tiit ba dee ak ki ñu ne gaynde gi dem na boobaak léegi mille ans la mu tiit ba dee ñett ñi laa ne ku ci gën a ragal ay sunu nga boo cuune boo cuune da ngay defe damay lépp boo cuune da ngay defe ni damay lépp ci wax ji mais aw ma jot lépp déglul ma firi la li ma wax ñi ma tudde gaynde gi dana ñëw mooy yonent yu jëkk ya ñoom ak seen xeet ya sunu boroom daf leen annoncé rasulillahi ni mi ngi ci seen kanam dana ñëw ñu gëm ko te ñëwagul kooku mooy gaynde gi dana ñëw nga tiit ba dee alxuraan nee na wa ida axada allahu mithaqa nabiyina lama ataynakum min kitabin wa xikma summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuminunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa axadtum ala dalikum wa isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana maakum min ashahidin ma ñëw de balay junni at gay léegi dina yow nga tiib ba dee mooy yonent yi saaba yi dañoo dëkk ak njool màkka yaroo ndoog moom màggandoog moom mu xëy ni yàllaa may yónni ñu génn ci pénc mi gëm ko mooy gaynde gaa ngi ci pénc bi ñu tiit ba dee nun dañoo ñëw fekk mu dem ay téere leen fi fekk ak i fóore ñu tas téere yi wax nu kuy rasulillahi nu faf ko gëm kooku mooy gaynde gi ñëw na dem na nga tiit ba dee yaalam annahu rasulu rabbil alamin wa xayru qurbi almuhajilina wa sayidu jamii alanbiya walmursalina walladi kana nabiyan wa aadamu bayna almaai waltini raufun bilmuminina wa shafian bilmudnibina wa rasulun ila kafati alxalq ajmaina kama qala taala fi kitabihi mubin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ñett ñi waxaguleen ma ko gën a ragal
للمجاهدين على التسجيل وجل محمد تحصيل دوام المدح مدح النخبة الشديد
وقد استشفى الاسبوع الشريف على اربعه حروف هجائيه kooku benn benn la laaj benn benn la laaj sànq sax dafa am lu ngeen waxoon da ngeen ne xaw ma lan yaanu koy firil daf ci am lu ma contre mu rafet ji da ngeen ma koo jeyee njool mu wom nu muy rafetee man rafetuma waaye dinaa leen tasal ba mu ni tasar na tasi neex
نجي كل مدير وما تفهم وما تفهم يا محمد صلى الله عليه وسلم
waxal ishamalat nga ne وقد استشفى الاسبوع الشريف على اربعه حروف هجائيه
wax na lu rëy kat xale bi doy na waar de wax na lu rëy de nee na turu yonent yàlla Muhammad quatre lettres ko composé waqad istashmala làmb na ëmb na ismuhu shérif turam mu tedd wa ala arbaati axruf alxijaiya ci ñeenti lettre ci alphabet bi nee na benn bennal fokk ngeen teey su nga avion avion ñu koy dawal ñëpp ci lañu waaye am na ku diriger waaw alaaji Malick Pouy nee na colonel Ndoye sas na ko te nangu na sas wi nee dafa am lu mu waxoon fii ci tournal bi nee na mu ne Sidi Aboubacar mooy xaritam mu ne na ko may kër nee na may na ma kër man may Sidi Aboubacar kër nee na bu jógee moom nee na mu jox ko numéro yi nee na may na sëriñam kër may na xaritam Abdou Sarr kër boole kook sama kër ga ca mbaaw gannaaw muy ñaari kër nee na nu dem waaw